Salut les amis de Babo Show et également de eSport TV. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de louer des likes. Merci de louer des abonnés. Merci également des baisser des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. Des partages et des informations. Inbox sénégalais. Fait pour le 14 régions du Sénégal ruq-ruqaat yi gox-goxaat leen di jajeufal ñu nekk également ci lal hôpital ci kër du feebar yalla na suñu borom fogg seen bokk ñëwee rek jam ñu nekk ci kaso yi nga xamni aussi erreur judiciaire gi ñu leen def mo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i ñi ñu dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi doo si yexé ñu on avance ensemble dans la magie de Babo Show et des sports TV l'actualité en contenu kay actualité tv ñu fa seen waxtaane les lions du Sénégal en mode korité wax également ci kii di Sadio Mané encore proche de la fin mais également proche de d'écrire son histoire ah hein. bataille tey ak beneen anam wax aussi ci Kylian Mbappé bi nga xamné ne jamono ji mi ngi koy dégg bien évidemment man of the match homme du match le doublé donc du brésilien face au Paris Saint-Germain ci quart de finale Ligue des champions donc gis ngeen waa Barça dal euh, war na nañ seen bopp tey jii hein. un match très solide un match boo xam ne gars match bu neex la hein. donc moo ko pendant son temps Riyad Mahrez euh, mi ngi pour soutenir son ami mi nga xam moy Ilkay Gundogan le joueur donc du FC Barcelone ñoom ñaar ñoo non Manchester City Gundogan également nekkoon confort capitaine bien évidemment le joueur international allemand et l'algérien qui a donc lui Enrique moom it ah kenn mooy ko lu nekk wax nañ ko ko moom nag nee na dañuy dem ci Barça pour am ambition ou daal di fay euh, def match bu reuy reuy loolu dal lui Luis Enrique daal di wax gannaaw bi nga xamé ne nañ tay du côté du Parc des Princes match bo xamné comme je disais rek ah, on n'a pas compris man bon ba ma ce milieu de terrain la daal nañu leen dal pendant aussi Kylian Mbappé mom ah,

am nañ ay ay tolof tolof ñu ci am te aussi gars yi dañoo jàppoon ne match contre Barça day yomb na ñu ngi nax seen bopp ndax Barça équipe bu baax a baax a baax la pendant ce temps euh, ñuy wax rek ne équipe française amul kenn koo xam ne en Ligue des Champions ce premier match perte nga ko nga daal di qualifié mujjantal gi dem ci beneen phase peut-être que nag lii dina nekk hein, benn benn prouesse bu fekkee ne Paris Saint-Germain dem na qualifié du côté donc de FC Barcelone ki nga xam ne également mooy donc euh, le joueur français de la l'Atlético Madrid Antoine Griezmann moom it moo nekk homme du match hein. Griezmann dugalul mais il

ah malien donc gis nga ko moom mu féete <clears throat> lii di côté mais également xelam nee mu jël ko jëmale ko ca Palestine ñi nga xam ño fa nek jamono ji suñu mbokk euh, jullit di fa nek tamit ñuy masawul len daal di dal ki nga xamne aussi nak moy donc ah xam ngeen ko ñom euh, les joueurs Malick Thiaw gis nga ko ah, les joueurs donc du du Milan AC ah ngi ni di fête sen euh, li nga xamne donc sen corité avec Malick Thiaw bien évidemment lui aussi ah xam ngeen ne jullit dal ndax papam sénégalais la gis ngeen ko ki nak également kenn doot ko présenter ah kenn ko présenter Yaya Touré la légende vivante du football africain gis ngeen ko ak donc ñaari doomam yi di ci bi également pour euh, fêter ko donc mon bokk na le joueur le plus titré en par rapport au ballon d'or africain ki nga xam aussi nak donc Presnel Kimpembe nga xam ne moom gis ngeen ko julit la ah gis ngeen la l'ami de ki nga donc Idriss Gana Gay Presnel Kim Pembe, bien évidemment, dit de Amara Diouf, hein, l'enfant de Pikin de Génération Foot, mon gis ngeen ko a la fête donc correctement casquette am le joueur donc euh, de Génération Foot futur joueur de FC Metz un joueur très très talentueux ñu koy ñaanal bu a baax ndax tamit hein, c'est un joueur et c'est l'avenir du Sénégal pendant ce temps aussi Pamata Matar Mon Boy mon football gis ngeen le fils de Sira Sarr hein, donc l'enfant de Thiès et de Spurs de Tottenham moom it nii la fête correctement def ko simple bien nii la hein, defee

pour l'international sénégalais donc double ballon d'or euh, africain hein. gis ngeen ko Sadio Mané aussi nekk jamono ji euh, sur une dynamique bo xamné il prépare sa dernière CAN et sa dernière coupe du monde probablement grand bi xamné coupe d'Afrique bi di ñëw inshallah mo probablement peut-être hein, mën na dernière canne mais on espère que né euh, il va montrer encore de bonnes choses ci li di Sadio Mané hein. donc mon gars yi li mo nekkoon information yi bëggon jox c'est toujours un plaisir de vous servir di len baal waat ak bu wér-wér wax suñu borom rek mo dul ju mo moo mat ah, di ñaan rek mu taas ñu ci barke barkeem aat ci lépp loolee nekk de gars yi nañ gën a jëm kanam fi mu ne nii nag ñëpp bokk liggéey toog muy dox jeex na gars yi liggéey Sénégal jëm kanam ngir ñëpp mën see jëriñu mu bañ a nekk moomeelu kenn moomeelu ñëpp yàlla moo njëkk ma mujj gars yi jaa ngeen jaaf